moo taxit ndimbal laa jublu ci lii may wax gis nga kuy waxateeg di contre ki di critiquer terewuñ ko waaye xamal foo koy waxe internet bi day dox te li lay rusloo yàggul xam nga na ngay mujje mooy xamewuma ko woon nii ay nit a ma ni woon nangam mag du rusloo boppam yërëm leen nag moo tax ma di ko wax parce que man xam ngeen ni képp kuy wax man ci man ci garantie lay dox man fa ma jëm la may dox la may wax ku ci wàññi virgule laa gisul ci kaw si ndax Cheikh Tidiane laa jiitu te loolu ñi ma xam-xam na ni loolu door na na ko ñëw Medina Cheikh daaw mën na ko seede doggee tuuti jooy tuuti lan la ah 2017 kat dama ni woon nangam nangam waaye xam nga dama xamul woon ku xamul day maandu loolu la la diine digal xam nga lu diini islam wax nee na xamoo bu ñu waxee neen xaw ma de maandu ma waaw loolu la wax waaye nag malheureusement ñun ñoo mënul loolu da ngay dégg ko fi ne el eh, cheikh nee nañu nangam nga ni ndax mës nga ko ni dama ko séen ci internet rek wala keroog nee ñu nangam moo ku ci wax el eh, nangam nangam nga ni ndax mës ngeen toog mu ni déedéet mësuñu toog dama dégg nangam nangam rek man ku may nuyoon nuyoonteel munoo ma compte ndax bu ma la nuyoo sol la ba nga fees boo génnee xaqiqatu Muhammad yee ngay waaye doo ma koo dégg muy compte gisu ko déggu ah. moo tax maandu baax lu am solo la ah. ndax nga maandu sa njëriñ la nga maandu sa njëriñ la boo maandoo ñun lu mu nii jëriñ boo maanduwul lu mu nii wàññi nee naa leen deux mille vingt deux ba deux mille soixante quinze waaw te loolooy réalité bi te benn mbokk mës na ñëw ci man di ma ko nettali mu ni ma am na mbokk muy wax ba yàgg mu naan lu ma jaaxal moom sax waaw ni mission am deux mille vingt deux lay door waa moom li muy def nii lan la ma ni ko danga nga ma xamul lii lancement la bis bu mission bi dooree sa biir néeg la la leer bi di fekk pour wax la ni loolu la ñu yaroo. te nun ki nu yar mag la ki nu yar mag la ki nu yar moo yar mag ñi muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif te Cheikh lu mu joxeñ muy dellu ci garantie moo tax engagement bi ñu war a am ci bëgg sunu bopp parce que boo bëggul sa bopp pour man mënatoo xàmme diine gis nga yonent bi bi muy woote ñi mu doon woo ñëpp amul kenn ku ci ñëw dugg si ci diine islam ñu ni ko Muhammad kat am nga ci intérêt amul waaw kon ñamu doon woo ci seen njëriñ la leen doon woo looloo tax nag ba ñu ñëwee ñoom ñu dem ba jëriñu xulafaawul arbaa di Ababacar di Umar di Ousmane di Ali roy ci ay tànkam ba tey islam toll fi mu toll islam boobu nag crise des valeurs lu muy bare bare kenn mënu ko yàq inna nahnu nazalna dhikr wa inna lahu la hafizun yàlla nee na maa ko wàcce waaye maa koy garde waaw moo tax ñu gis ni garantie yàlla moo nekk ci alquran alquran boobu nag kàddu dëgg ba moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk ko ci ñetti baatu xaqiqaam ya alif lam mim zalika alkitaabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaye xam na ni gisuñu ko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 képp ku topp ku topp ci tànk yonent bi joxeñ bi mu joxeñoon sahaba yi joxeñ jullit yi jub joxeñ na leen